Vibe Radio. Vibe Radio. 102.3. Show. Show. Vibe Radio. This one is for love and memory. Yéen Talrek ngi Show with my man LNS, you know, Lenin, aka Talrek, aka The Ghost. Tey man my present émission You know what I'm saying? Spécial Loge des Poètes le 17 mars aussi, c'est avec Purpose, The Ghostwriter et le Kalama Bane. Vous êtes en live sur Vibe Radio ma jox la pourcentage rek bi wala. alors muy noonu lire, lire, lii muy noonu. yes waaw léegi comme euh, comme on a souvent l'habitude de le dire c'est pour c'est aka the Ghostwriter aka Mr Hip Hop. <laughs> original. <laughs> yes what's up donc nous, euh, ngi tous les Facebookers, tous les Facebookers nous, ñi nga xam suivre Sénégal nous Vibe Radio know 102.3 ñu ngi nuyu Sénégal fépp ñu ci bi am live streaming sànq maa live mais finalement dama ko donc Mr. LNS nous ñu ngi lay dalal alors comment va <laughs> très bien et toi yaa ngi cool ça fait plaisir de revenir ici donc euh, ñëw gisaat la <laughs> waaw donc euh, xam comme d'habitude la family first comment on dit. family first waaw. di la dalal bu baax mais mbaa yaa ngi am jàmm. ma ngi am jàmm bu baax maram ak njaboot gi ñëpp ngi si jàmm. alhamdulilah ñu ngi ci ñu ngi ci loge yi. non ñu ngi VIP. <laughs> VIP prestige. <laughs> loge loge des VIP. waaw loge des poètes VIP. loge des poètes VIP. jërëjëf waay. yes. mu naka mu. nice cool bro ngi am bu nice ñu donc ñu ngi once again di ziar donc euh, mhm. donc on revient pour la loge des poètes 2.0 c'est aussi cesse le 17 mars en partenariat avec Vibe Radio. force force force force The <laughs> new Right FM the Right Right Family. ak ñëpp ah ok lan mooy am ren. waaw ren. Euh, on a changé de lieu. ren euh, en premier on a changé de lieu moom mooy premier information bi ren ça se tiendra à la salle de l'unité africaine du CICES. Hmm? une salle beaucoup plus grande. ah oui une très belle salle donc ren Fof, lañ nar a dem yóbbu loger parce qu'on s'est dit que ñun moom suñu liggéey xamul stagné. chaque année ah. dañuy def benn pas de plus. te ren ren yemul rek ci ci concert. parce que ñun ñu loge loger poète daa xam ne ne loger poète du concert hip hop. c'est hmm. c'est un spectacle c'est un spectacle terrain, c'est une semaine d'activité parce que euh, on démarre le, le samedi 11 à Rufisque avec la conférence de presse il y aura aussi une caravane en partenariat avec Vibe Radio. Oh, oh ok. Donc, donc <laughs> <laughs> Family avec Vibe Radio, mhm. Donc, le 15, Inch'Allah, on fait une conférence à l'université en partenariat avec Campus 2H. Mhm. Une conférence sur l'impact des textes de rap dans l'éducation scolaire. Comme j'ai l'habitude de le dire, ah, euh, pédagogique, moi, tey jii soo waree jàngal métaphore soxla ngay dem sotti seeti ay Baudelaire ak ñom Molière mhm. def nañ fi lu rafet d'accord waye fi tamit am nañ ay bindkat ci hip hop bi donc euh, xam lu manque ci hip hop Galsen mais du ay direct, donc y a les figures de style y a les genres donc euh, pour man c'est très pédagogique lu ñu war def le parce que ça se fait aux États-Unis ça se fait en France mhm. avec Grand Corps Malade avec Booba ak yooyu ba pare doguma la mais dafa tegu ci ay ay anam ñu leer ndaxte euh, mhm. bu njëkk bu non wax na ni hip hop bi rap bi street la lu leer mbedd bi la. waaw mais léegi dañoo am ay mbedd lecture. ay mbedd lecture lañ am yow. <laughs> parce que yow foofu nga génne. <laughs> léegi ay mbedd lecture lañ am tey xam nga. te man sax foofu laa génne. voilà donc donc donc daa bëri daal ren daa bëri ñoo xam ne war nañ mën a war nañ mën a défendre thèse boobu noonu. Mhm. donc euh, xalaatuñu bëri la. donc ñu ne comme loge de poète la on parle d' écriture on parle de hip hop donc foog ñu boole ci loolu. très soo gën nag ñëw le vendredi 17. Hmm. mars nag on fait opérer la magie. est comme des poètes. non ren ren day gëna magique encore parce que xam nga ne fou sakou nek sakou ma abib Habib Sembène maa ziar c'est lui qui fait les tenues c'est lui qui fait la déco. ñu ni de voilà Mr donc suñu jugee fofu am da daaw magicien bi la woon. donc ren feneen la ñuy Purpose ak kalama benn ñëw té kalama benn da mag da am yeneen éléments yu bees. Ah! yeneen élément yu bees donc le groupe a grandi. Ah! musicalement day gëna mer day gëna soxor nga waaw donc en plus waxatuñu première partie bi nga xam ne. Ah bëri na bëri na ay artistes yoo xam ne xam comme daaw logique da ngay jéjek rek benn ndongo di fël mais benn kayit yi fël la. façon bu nekk Jili Bagdad Simon Books façon bu nekk fël lañ daaw. Ah. donc ren day amaat yeneen surprise encore. en plus en première partie il y a les artistes de Sunu Il mhm. y a d'autres artistes de jeunes qui viennent de Rufis il y a actuellement des artistes actuellement de la nouvelle génération xam ils cartonnent et ils seront là xam nga logique moom full of surprises. ay surprise rek lay doon. non magique la. waaw donc ci magique bi. waaw yëfu yëfu jinne la daal donc daal le 17 mars. affaire ah, bu fekkul si ses te ticket yi li gën a neex mooy ticket yi c'est déjà en vente. grâce à ticket bi prévente ñu ngi ci Right Family ci Amet donc il euh, y a les tickets sont sortis am na. ticket bu ndaw am na ticket bu mag am na bu gën a mag a mag. waaw donc waaw. ku nekk ak euh, tànnal sa bu la neex la daal tànnal sa bu la neex la su doole doole ko. exact ci bismillah ban ban moo am am 5000. am na 5000. am na 10 000. VIP. amna VIP prestige. Mana tey jii comme tey su bëggee jàpp ci va loger point bëgg ci participer xamul nu mu ciy participer. waaw day jënd benn VIP prestige juste pour jàppale jàppale jàppale événement bi. donc en fait loolu VIP prestige c'est pour c'est fait pour ça parce que ñun moom comme xamuñu sa mbay mbayaan duñ dem ci kenn naan kan may ñu xaalis. dëgg la donc léegi noonu lañ koy defee léegi koo xam ne sentir nga jàpp suñu job wala koo xam ne sentir nga jàpp ci loge des VIP prestige yaa ngi nii donc c'est une ah. manière de participer donc tey lépp lu ci dugg ci. sunu kàddu lay ñëwaat ci ay artistes yeneen artistes lay jàppale donc euh, c'est la famille daal. waaw mu ngi noonu daal. ma dolli ci leen. waaw dolli ci prestige bi. waaw di nga defee ñetti catégorie uh-huh. loolu moo am yoon. ndaxte mm-hmm. Papa Sow dafa nekk artiste boo xamante ni mu neex gune yi. waaw ak mag yi. <laughs> te magi mënu leen bolé gone sama koñ gars yi ma maa rappeur pa ak maire mu ngoog waaw mu ngoog mu ngoog ba pare tamit waaw <laughs> yëngal jeunes yi tamit for real macha allah donc magi il faut ñu waaw foog ñu ñëw tok xam tamit foog faut pas aussi que ñu lé mhm. suñu hip hop bi juste pour un public jeune mhm. am nañ léegi mag ñi dañuy intéressé aussi li ñuy def dañuy déglu li ñuy def mhm. donc daaw j'ai eu daaw surprise ma amone moy daaw dafa bëri won mag waaw mais mais loolu loolu loolu loolu sama ça m'a vraiment fait plaisir donc euh, ren moo tax dañ koy gëna a rek faire opérer la magie mag ñi ñëw parce que limay wax rek mag ñi ñëw pouvoir d'achat xalé yi. donc suñu bis bu ñu ñëwee tamit dañuy gonfler suñu hip hop rek suñu hip hop bi gën nice. day day day gëna bax et puis tamit day findel lenen mhm. li nga xamanteni moy comme ni nga expliquer hein, mhm. conférence bi. c'est vrai euh, bi ñoom campus de h mhm. wane ni xel baa ci hip hop. c'est vrai mais tamit avec la manière. c'est vrai un poète c'est un noble. c'est vrai waaw nekkul affaire quoi. affaire ci mi rek. ci mais dafa dugg ci en même temps aussi parallèlement aussi pour ko ren ci en dehors de l'aspect éducatif. dans mhm. ben social bu ci mhm. parce que dafa am école bu à Rufisque. Mhm. école un peu pour les enfants déficients mentaux euh, le centre inclusif. docteur Chandrandoy mu ngi ah. stémionnaire doom nawle la doom donc mhm. dañ fa soriñu suñu voisinage la nekk ba pare gis nañ daam bi fa nekk effort yi muy def les conditions sont difficiles xale yi muy gérer dañoo bëri te ku ci nekk si ñun ñaanuñu ko yàlla waaye mën nga am doom boo xam ne amaana day soxla assistance ñooñu noonu donc euh, à travers événement bi ñu def aussi dañuy fexe tamit defaale waaye ñooñu fexe defaale un madial pour mën a jàppale école boobu noonu donc am en dehors de ñun li nar a jël suñu suñuy recette versé ko ci école bi mhm. jour événement bi tamit dinañ circuler këll gi def ko këllu Baay Faal képp koo xam ne bëgg nga jàpp ci loolu noonu mhm. incha allah gars dinañ ñëw ci yow nga jàpp ci au moins ñu mën a am lu conséquent loo xam ne dinañ ko mën a dimbalee euh, le centre inc waa dimbale ko école bi parce que suñu leen dimbalee suñu bopp lañu dimbale dafa leer yes am solo. waaw euh, allier l'utile à l'agréable. mais moi lolo moi mission bi. mais musique musique elle dépasse les frontières. c'est vrai. pas seulement les frontières physiques. parce que ni mm-hmm. gis euh, Pampas muy qui macha machallah ñu côté teewal. Mm-hmm. mais frontières musicales, parce que tay ñu ngi waxee waxu live band. Mm-hmm. tout le rap. musique là. c'est vrai musique la. c'est un genre. voilà c'est un genre dafa dépasser cadre musique parce que léegi spectacle la. c'est vrai dañuy gis ay costume dañuy gis agencement scénique bien avec le yëpp. c'est vrai mais lan moo war le lépp. waaw bëgg avancer bëgg a dem ci kanam rek hein. bëgg avancer bëgg a dem ci kanam parce que tey jii sooy xool ñun ñii référé wu tey suñu wax le hip hop mondial. Hmm. tey les Jay-Z les Nas les yooyu noonu. Hmm. soo leen di seetaan depuis des années bande la ñuy def ci ginnaaw dëgg la te en même temps aussi une génération ni mu amee ay rappeurs noonu amee musiciens. man tay sama bande ki ci ki ci mag 23 ans la am ay xalé la yor. est-ce que Georges sama boy batteur bi nga xam moy mooy jommal Sénégal actuellement. amna na jom de il est né en 96. machallah allah macha chaque fois suñu waxtaan dama koy fatali Coupe d'Europe 96. Bernard Pedros di raté penalty bi contre République tchèque. xam nga booy loolu maanaam. 96 nga wax. 96. amu amuñu ay anciens la donc voilà donc xam nga en fait comme suñu génération tamit y a beaucoup de musiciens d'instrumentistes donc c'est une c'est une manière aussi wane waala loolu noonu. si il faut ñu fësal loolu. faut ñu fësal loolu ba pare tamit li may wax gars à chaque fois quand les gens viennent à notre spectacle ñëw ñu pour simplement déglu suñuy musique déglu suñuy son parce que.

li nga dégg ren ak li nga li nga dégg tey ak li ngay déglu weer bi di ñëw sax day différent. ay ay ay kalaama la quoi. mais ay ay clé la ay clé. <laughs> ay clé ay clé ba pare lu ci lu ci lu ci rafet tamit rax ci dolli lu ci rafet tamit mooy mhm. euh, instruments yi ngeen di utiliser maa gis jëmbe. waaw gis xam nga. c'est pas forcément instruments yoo xamante ni moom tubaab yi moom wala yenn gars yi ñu koy jëfandikoo quoi. lu leer a parce que en fait man j'ai j'ai l'habitude de le dire. Mhm. ñun bu ñu ñàkkee fayda. waaw ba mbalax maan jël suñuy instrument traditionnel na ñoo ko moom. mais xam nax suñu bopp. xam nga yaa ngi wax mbalax maan xoolal ñoom kif noo bit. mais xoolal et cetera. moo tax ma gisee gars yi def ko su le net def ko lu rëy prod boobu. Ah. dañuy fàtte ne diw. en deux en deux mille quinze. waaw amoon na ko cent percu la. na ko te man maa tëgg percu yi. parce que déglu African Flow. en deux mille quinze donc yàgg nañ use ay percu suñu musique donc ban limay wax gars à chaque fois c'est des instruments de musique. Mhm. tay jii li ngay jëlee batterie di jël basse di jël violon. tay am nañ tamit ay instruments fi mhm. ay toxoro ñu ngi fii. xam nga ay leket ya ngi fi mhm. sabar ya ngi fi jëmbe de toute façon. équivalent la yow yaay xol rek direction bi nga koy jox. quand tu veux faire du mbalax tu fais du mbalax. mais quand tu veux faire du hip hop avec des instruments africains tu le fais. ñun on le fait depuis longtemps te defuñu mbalax. si dafa leer defuñu mbalax. man damay tëgg. Mhm. ñëpp xam nañ loolu ci man. daaw mhm. Sorano ñëw gis nañ ne ma jiir maa doon tëgg mbaaru bukki. ci sama jiital samay percussionniste. <laughs> Ah, mais Fall li may wax gars yi leneen moo soit tu es un mhm. ñun ay artistes lañ. dëgg la waaw tey pour man même soo nekkee rappeur yi di naan euh, jaaykatu ambulant boo gis soo xaree dënd ba magasin nga ciy fekk. dafa leer on démarre comme rappeur. jànguñu solfège. ci mbedd mi la ñuy foraatoo. plus nous dem plus nous évoluer on tend vers vers l'artiste. parce que tey loolu mooy suñu liggéey man loolu mooy sama liggéey. Ah. loolu mu laa am donc euh, je vais essayer d'y faire chaque fois mon musique gën grande ouverture tout en gardant l'aspect hip hop. parce que comme je le dis souvent doo fàtte la la fal. ku fàtte la la fal faut lekk da lay yomb. force Moi je suis un rappeur. <laughs> hip hopeur là. Hmm manam ca bop ba ci wey lepp hip hop la depuis ba ngi jin fonde. <laughs> yàgg na yow fekkee nga quoi fekkee nga. <laughs> te esprit boobu noonu. sama boy ba léegi lañ may toy ne dama underground trop. mais leg sama bir underground boobu. aussi hmm. j'essaie de mettre de la couleur. j'essaie de mettre de l'ambiance j'essaie de mettre de la chaleur. damay bëgg tay ji ku tok euh, au Japon wala en Chine wala aux États-Unis c'est hmm. deglu sama hip hop ngay sentir ne c'est du hip hop mais ça vient du Sénégal. donc lol nonu man daf ma ñor. c'est un peu ça mon combat donc mangi, ci mangi liggéey te ñu ngi dem comme je le dis souvent. tepp vous mhm. gën yuret ñu dara dañuy ram rek. ce que vous <laughs> euh, ñu dem fay facture bi This is Five Le Tal Show. This is still going down with the best of hip hop and R&B. Old school, old school, avec les poètes, euh, la loge des VIP sur <laughs> lan ce message euh, pour xaaral ma jël Salam salaamaaleykum allo waaleykum salaam Wa ku baax waaw ziare ñu delloo ziar am benn gaan bu ma bëggoon waaw bismillah Wa salaamaaleykum salam. Mm, ben eh. hein. <laughs> salaam professeur ñu ngi ziar delloo ziar émission bi nice na trop merci beaucoup merci beaucoup ça fait plaisir est-ce que xam nga kan la xam nga kan la <laughs> waaw bismillah dañ dem <laughs> jaajëf jaajëf jaajëf. maa ngi suivre et puis bon maa ngi lay encouragé bu baax a baax a baax. jaajëf merci beaucoup. voilà quoi yow moom ngeen bu ma yàgg suivre nga depuis depuis longtemps. jaajëf et puis bon voilà quoi j'ai tenu à ce que j'appelle pour participer si émission ça fait plaisir ça fait plaisir. donc voilà suivre naa lépp et puis maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax. jaajëf mm, merci beaucoup. mais baat bi familier na ma nag mais xamagoo kan la <laughs> ay dóor la. Ah, <laughs> ma ne baat bi familier na ma mais xamagoo kan la. rappeur la de. si xam naa rappeur la. waaw moom ci moom sax artiste la nekkul sax rappeur artiste la rappeur la fan la rappeur ah, bu la fan la quoi. Ah ah, ah ah ah kon est-ce que yow gënuma la fan. wax nga ko sutur de.

jaajëf jaajëf jaajëf dinañ def tout ba nekk sur place incha allah. incha allah rabi. moom voilà di la encouragé bu baax a baax. non yow foog nga ñëw yow yow yow foog nga ñëw yow foog nga ñëw. foog nga ñëw. poète la de. yow foog nga ñëw ci poète nga bokk. poète la de. waaw. Ah. poète bu mag sax. <laughs> yow ci poète nga bokk foog nga ñëw. voilà en tout cas daal maa ngi leen remercier aussi et puis moom di leen encouragé bu baax a baax. merci beaucoup merci beaucoup. yow Fatou moom je pense que je pense que Sénégalais yu bëri am am nañu ko xam parce que il a publié ci le depuis. macha allah depuis bien longtemps. je pense que ko en fait. waaw waaw maa ngi seen ginnaaw je pense que des na des na des na lu bëri ci ñu ko war a xam. en fait am na ñu koy suivre ñu bëri ñoo xam ne sax peut être xamoo ko ñu trop trop potentiel waa ñoo ci noonu quoi. waaw waaw maa ngi seen ginnaaw rek. tepp tepp tepp rek bii di ñëw. ça va ak yeneen ak yeneen incha allah. incha allah rabbi. jaajëf merci Stéphane. merci beaucoup frère. <laughs> yow ñoo far yow la ñu waxtaan ci suuf rek amul benn problème. jaajëf yow moom dégg nga jaajëf. jaajëf ñoo far. waaw gis nga de. C'est safaan c'est gars line bi non du ubi line parce que man ma bëgg wax ak téléphone explose. Non, mais c'est bon comme que bon on est obligé de déroger à la. Le <laughs> <laughs> c'est quoi le message. déjà le message c'est. 2.0. waaw le message c'est déjà déjà d'inviter tout le monde. <laughs> donc euh, c'est un show pour xam digg ñëpp ko ñëpp ñëpp a ngi koy xaar. Mm-hmm. donc euh, di remercier aussi au passage sama sama ñaari artistes mooy Xudaar ak Bura. donc ils m'ont fait la surprise de faire l'hymne de la loge des poètes. Boura men waaw Boura ak Xudar ñoom ñoo ko def donc mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci page bi internet Facebook. Papa Cédé ah, Right officiel non naa la ko envoyé naa la ko envoyé tey lañ ko publier oh tey lañ ko donc di remercier aussi sama copain. Mhm. El Hadj moom ñoo ànd mag moom tey. di remercier tamit sama band Kalama Band actuellement ñoom ñu ngi répétition fala laa leen bàyyi dama tàmbali répétition bàyyi leen fi daw ñëw. ci sama wàcc émission bi donc ñu ngi foofu su ma paree damay enchaîner waat dem mosaat ñaaroo la ñett. parce que ñun on travaille tout le temps donc di remercier aussi Vibe Radio parce que mhm. gis nañ tamit euh, liggéey médiatique bi ñu def ci ci événement bi. Mhm. donc euh, équipe technique bi yëpp du ma lim suma limé damay juum. waay waxal rek waxal équipe technique bi Dévi. ñom ñom ñom ñom Ablaye xam nga ñom Mamor Dévi Ablaye Mamor <laughs> xam nga waaw waaw. <laughs> Jacques Grand Jacques lenin tout le <laughs> monde daal waaw donc di di remercier ñëpp di remercier aussi en premier lieu aussi sama premier sponsor muy euh, The Writer Family sama fan club ñi nga xam ne événement bi ñoom nekkatul sama événement ñoom dañ ko jël si man. donc euh, ñoom ñoo nekk def lépp it vendent le ticket ñoom ñooy def lépp lépp lépp. di remercier aussi la fondation Sococim parce que ñoom ñooy soutenir la mm-hmm. loge des poètes. Mm-hmm. depuis le début ba fiñ ñu toll nii. donc euh, madame Diagne monsieur Diouf donc di leen remercier bu baax parce que ñoom ñooy soutenir les cultures urbaines à Rufisque. di remercier aussi am na tamit ñeneen xam nañ yéene yi. Mm-hmm. am na ñu am doole am na ñu amul doole waaye xam nañ yéene ku nekk. donc tamit di wax aussi waa Rufisque seen événement la la loge des poètes tëngeet la doon amee ñu jëlee ko Tëngéej mu mag ñëw ba Dakar. donc euh, waa Tëngéej tamit limay wax daaw gars buñu si yéex ba. wa Dakar ak ah, wa banlieue bi wa région yi nangul la Lodj Point ah, donc sen événement la mhm. c'est sen dom la doomu dëkk bi la ko xamné bañu démarrer ba fiñu ñu ni nii waaw tëngee dañ mas a représenté waaw te yaakar naa ne yóbbu nañ ko fu sore sore sore sore ci hip hop léegi di xaar suñuy rak tamit ñu ñëw gënaat poussaat baar bi encore mu gën a kawe donc loolu mooy mission bi ñun ñoo bokk combat ñoo bokk lu ñuy liggéey ñoo bokk lu ñuy représenté donc euh, ñëpp daal ñëpp donc di remercier ñëpp donc spécialement yow moom doon ma la remercier yow moom man ni nga may remercier waaw yow du ma la remercier di Aïcha <laughs> ok <laughs> di nga di nga tàggatu balaa ngeen dem de ah. <laughs> Aïcha ok yow yow ci suuf laa jógee ni ndongo loo ndem si yàlla tànku kanam dootul fekki tànku ginnaaw ndem si yàlla bi jógee dafa sori yëga gën a jege dal lu bot lu xus ci gor yi di jëkk xiif soog a nekk soog a yegg gis yoon bi dem tepp tepp soog a nekk ans laa leen rawee ma dee ni van ans dama ma dee ah mais dami na gos sa mi mi na gos na na am coori mbetale gos xuus leeri os mi mi xos niveau bi na na fi mu ne yokku na ハハハハ Yes, yo. Freestyle flow, purpose set your vibe ready up. Yeah. Yo, the ko ni rapajo, sen sa ifa, rap sa ifa, purpose the ghost, ak the Lenin man. Tal rek, what's up? Really <laughs> tal ma fay, purpose the ghost, say mu may me. gis na li may rap, ma koy filmer. Elage, naka war, damay talk di freestyle 102.3, purpose the ghost bu de rap mo ci <laughs> vibe radio, purpose the ghost, loge de poètes de set master C6 uh -huh. Purpose to the ghostwriter akala my band Yeah Nen dara du yombo <laughs> Nigga dara du yumbo. I'm a guy that Purpose the poet Wow. ngay gis beneen nigga bu man freestyle man rhyme, man flow ci sawet you know what I'm saying yemuñu rek ci mbind mu taaru dañu mën la ñuy def barke sëñ Bamba loolu dafa leer <laughs> <laughs> yes rendez-vous le 17 mars au CICES. mënul yomb. ah ok ñu c'est le Show. ok mosal la Masu Mahama talete don mu manuzela Turbe andak bayre riru vuvuzela Tasbitekila tana ko pa From zero to hero te pa mu ma Tilang mahatalga Lonkal ba kinyu da dinku yatal da Ponkal khar mbedum mi moma dalal ba Togal xaar xam nga ne sama yende fande nega may togal xaar Yow ne leen lépp easy na Léegi faara pile duñu lekk tishi na Murder murder mind like you Di boju di bule massacre lyrical Wow saison bi tijji na Yow sentuma ni korité ma baax ci yow toggal di wuni karité jigéen jiite na juma rajo loolu du parité yéen a bari fekk right gonna mooy qualité jox la lem nga fay makaani jalousie nga makaano jëm naa la jox nga naani kaani ñaani bañ na aano jëlal paaka dem bur bi denk na makaano trois points lay dugal nangu war reboo ci paano Papa Sir Ghost Rider <laughs> Tal Show What's up? Vibe Radio yes yo. Vibe Radio. ma joxaarloo bande bi. ayca ñu dem. ñu Ah, si le Talk Show. ok. masuma xam atelier non boobu bu dem na sax baa ma jëlaat beneen. ayca ba tey. yo test test one two test test test yo. ok man dama kawe pour ñoom Nigeria My check référence bi Nigeria authentic, lyrical gary and a saint fake in the talk. Yes, this is hip hop. Fella, Man, mane funeticon, juggle fagasufone, mane do bagasugore. he yaga this piece, asunga ti gis, money baby dore this piece, better gis gis one. Eh? Let Letu mak gonna do kofiri, nana hip hop da fadera puri gonna buddy. Letu mak gonna do for iri, kune de jai class man me jenda I ecole. Ha ha ha! Sunuka Records, Purpose to the Ghostwriter. we out! Yes!